وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم القائل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu boroom subhanahu wa taala di ko dimbalikoo moom mi boroom mi kattan di ko ñaan it mu jéggal na suñuy bàkkaar moom mi jéggalaakoon bi di ko ñaan mu jubal ñu teg ñu ci siraatal mustaqim moom mi nga xamante ni képp ku mu teg ci yoon boobu mucc nga waaye képp ku mu seetaan ci maandu téem ba nga wàcc boobu yoon kooku amul kenn ku la mën a jubalaat yal nañu yàlla jubal ñi seede ni amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala di seede ni suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la tànnifam la yàlla ñu ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di rafetal booba keroog ñu wuyu suñu boroom subhanahu wa taala ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla muy dénkaani borom bi subhanahu wa taala ci alquranul karim mu ñuy wax ay yéen nit ñi na ngeen ma jaamu na ngeen jaamu seen boroom moom mi nga xamee ni moo leen sàkk comme ni mu sàkke woon ñi leen jiitu laallakum tattaquun ngir ngeen koy ragal di def ay ndigalam di bàyyi tereem mbokk yi lii di julli de dafa bokk ci ponk islaami juróom yi borom bi subhanahu wa taala digle ko waaye digle ko it ñu defee ko ca mbooloo ma ca jàkka ja muy wax wa aqimu salaa wa aatu zaka warkau maa rakiin ngeen di rukkon ànd ak ñay rukkon ca mbooloo ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ci xadis ni buniyal islaamu ala xamsin ponki islaam di juróom la ginnaaw baatu seede yi taxawal julli lañ ca teg julli nag mbokk yi jëmmi julli dafa laaj ay waajtaay yu ko jiitu waaye it ami teggin ci boo ci taxawal am ay sunna am ak dal am ak toroxlu ngir sa borom subhanahu wa taala mi nga jàkkaar lool mu bokk ci yooyu noonu ñu lim léegi taswiyatu sufuuf mooy defar sàppe yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ci soññe ci lii di sàppe mu ni man sadda furjatan bana allahu lahu baytan fil janna wa rafa'ahu darajatan biha yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp ku ñëw fekk ñuy defar ay sàppe nga gis benn espace bu des nga ñëw fatt boobu espace nee na yàlla tabaxal na la aljanna tabaxal na la kër ci biir aljanna ba pare yëkkati la nag ay daraja fii ci kaw suuf loolu rek dafa doyoon sëkk ci ab jullit mu xam ko di fatt li nga xamante ni mooy sàppe yonent bi sallallahu alayhi wasallam musa wax xadis ci xadis wax saxaaba yi ni leen ala tasuffuuna kama tasuffu almalaika ndax duma leen digal ngeen di sàppe comme ni malaaka yi di sàppe fa yàlla fa qulna ñoom saxaaba yi ñu ne ko ya rasulallah wa kayfa tasifu almalaika inda rabbiha ana naka la malaaka yi di sàppe seen kanamu seen boroom subhanahu wa taala qaala moom alayhi salatu wasalaam ni leen yatimmuuna sufuuf al awwal dañuy njëkkalante ci sàppe yu njëkkee ba mu mat ba mu fatt fatt goo xamante ne du tàncaloo waaye ba mu fatt ba diggante yu fatt wa yataraasuuna fi saf dañuy njëkkalante sàppe sa ba sàppe ja mat waaye duñ fa nekk di di di xat-xatloo waaye dinañ ko fatt li mu jublu ci fatt diggante yi mooy mu ne ndaxte diggante yooyu ngeen di bàyyi seytaane da cay dugg di say jaar di jax-jaxal seen biir xol te jax-jaxal boobu muy jax-jaxal seen biiru xol dafay am ay jeexintal yu muy bàyyi ci yéen mooy kenn ku nekk di jàppal moroomam lenn loo xam te ne safaan la mu bokk ci ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam organiser sàppe mu ni la yeli ni minkum ulul arhami wan nuha ginnaaw sàppe bi njëkk mu ni ginnaaw mu ni sàppe bi njëkk ci imam nga fay nekk mooy boroomi xam-xam yi kilifa yi ak boroomi kàttan yi nee na ñooñu ñooy nekk ci sàppe gu njëkk bi ndax bu imaam juumee ñu mën ko gàgganti waaye su imaam amee ngant bay xëcc kenn di ko wuutal mu mën a xëcc koo xamante ni dina mën a mottali julli loolu la digle ci sàppe su njëkk si ndax it imaam nit la rek mën nay julli ba sa yàgg ngant dikkal ko mën nay julli ba sa yàgg sa xëm boobaa ku muy soxla boroomi kàttan ña ne ci ginnaaw ñu daal koy taaw mën na julli sax faatu ci julli waaye yooyu yëpp moo tax alayhi salaatu wasalaam jàngale si ni sàppe su njëkk si noonu lañ ko organisé mu ni topp sa ña ca topp ña ca topp mooy ñi nga xam ne bu ñëwee tamit fekk diggante yi ñu fatt ko ba sàppe sa mat noonu lañ koy continuer ba ci sàppe su mujj sa mu ni nag sàppe si nga xamante ne mooy sàppe si gën ci góor mooy sàppe su njëkk yi ba ca yées mooy sàppe sa nekk ca gannaaw ba sës ca jigéen ñi mooy ba ca yées mu ni nag la yazaalu qawm mu ni ab xeet de du ñu dañ di nekk yataaxaruuna xatta yuaxiruhum allah mooy nga ñëw fekk ñuy organiser sàppe yi nga gis diggante war faa dugg duggoo fa nga ni ak fii baax na nee na ab xeet du dañ di wax loolu lu dul yàlla dafay yeexal say mbir toujours ginnaaw ngay féete say mbir subhanallah yal na yàlla musal ci loolu mu ni nag ki nga xamante ne ba tey dafa ñëw fekk diggante fatt ko fatt ko moom daa taxaw mais gis na ni lii ab diggante la waaye fatt ko mu ni qataahu allah yàlla day dagg mbiram naka noonu la waxee ki nga xamante ne daa gis diggante mu daw dugg fa ngir rafetal sàppe si nee na kooku yàlla dina ko jokk ci jokk googu nga xam ne jokk na ko sàppe mu ni ginnaaw nag bu mag ñi taxawee ba pare la gën mooy sàppe yi xale yi sës ca sàppe yi jigéen ñi maanaam na sàppe yi xale yi mujj ca gannaaw loolu moo nekkoon cosaan ci taxawal sàppe si waaye comme léegi xale yi léegi dañoo yëngu am ñu yëngu te xale environnement am mooy am ko mu ne bu dee nag dem na ba xale yi di ëpp ci jàkke yi comme suñu jàkke yi léegi nga xamante ne daanaka xale yi ci ëpp mu ne na ngeen leen di greffé dugal leen seeni diggante dugal leen ci biir diggante yi ngir di leen di jàjji léeg-léeg ñuy xam ni fii de bërëbu jaamukaay yàlla te nii la ñuy taxawalee sàppe mu nekk ab defar ci ñoom li taaw li yataawad xale kenn du ko dàq ci jàkka waaye da nga koy xirtal ci jàkka waaye di ko jubbanti mbokk yi xool yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi doon julli sujjóot kenn ci seexu yàlla yi yéeg ci kawam ba mu yàgg lool lool lool lool ci sujjóot bi ba bi muy siggi saxaaba yi dañ ko laaj ne ko yow alayhi salatu wasalaam sa sujjóot bi yàgg na lool ba ñun dañoo njortoon ni sax leneen moo xew mu ne kenn ci seexu yàlla yi moo yéegoon ci sama kaw te bëgguma ko woon brutaliser maanaam xel ko mu daanu ndaxte maa ngi ci julli déedéet ma bàyyi ko ba mu foo ba doyal wàcc ma soog a eggale julli bi subhanallah ndegam yoon bi sallallahu alayhi wasallam moo digle loolu kon loolu ci lañ war a roy di tàggat xale yi ci biir sàppe yi di leen dugal ci biir julli di leen minloo yii di béréb jëm jaamukaay yàlla yi aqulu ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi ginnaaw bi ñu santaate yàlla suñu borom subhanahu wa taala di julli di salmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu taxawaay ñaareel ba tey ci sàppe yonent bi sallallahu sallam wax na ni ki nga xamante ni moom dafa am ngànt aajir ngir taxaw comme mboolem ni ñuy taxawee sàppe waaye moom ci chaise da mën a toog mu ne kooku toogaayam bi ci chaise bi nekkul dañuy jël tànkam di ko sësaleeg suñu tànk yi comme ni mu ko digalee ci sàppe ndax ki nga xamante ni mooy taxawal sàppe day fexe ba ay tànkam bu koy écarté day tolloog ay maggam keneen ki ñëw sës ci moom keneen ki sës ci moom noonu la ñuy taxawalee sàppe bu ko defee du am diggante mu ne waaye ki nga xamante ne dafa am nag moom ngànt toog ci chaise toogaayam ci chaise na toog toogaay boo xamante ni bu nit ñi toogee dañuy tolloog moom ci toogaay waaye bu ñu nekk di nekkul ni dañu war a sës ci moom ci ay tànk naka noonu it ki nga xamante ni dafay gàpparu moom mënul taxaw waaye day toog moom buy julli te lépp li leen ciy xirtal mooy dabu ji yool bi nga xamante ni moo nekk di julli ci mbooloo mi ndax yàlla mu ni laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha loolu niñ koy firee ñun ni yàlla tegul kenn lu mu mënul waaye loolu am firi la boo xam ne léeg-léeg déggin bi day yàqu niñ koy firee mooy yàlla de lépp lu ñu teg mën nañ ko lépp lu ñu yàlla teg rek ñun mën nañ ko moo tax kii toog tamit kooku it amul yitte ci ñu ni dañoo war a sësalante ay tànk waaye moom na taf rek ci biir sàpp si ba du bàyyi benn diggante ñu jeexale suñu xutba ci xadis bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam di wax ni law yaalamu nnaas ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا يونت بي صلى الله عليه وسلم ني سوغن خامون يين نيت li nekk ci nodd ak sàppe su njëkk nodd jullit bi bu ko déggee lépp lu mu noon def da koy bàyyi di topp ci li noddukat bi wax allahu akbar allahu akbar ngay ànd ak moom ca la muy wax su ne xayya ala alsolaa xayya ala alfalaax nga wax laa xawla wala quwata illa billah su daanelee nga ñaan ma ne raditu billahi rabban wa bi islaami diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasula soo paree nga teg ci ñaan wu siiw bi ni allahuma rabba hadihi daawati tamma wa salaati alqaima aati sayidina muhammadin alwasilata walfadila wa abaatu llahu almaqaama almahmud allazi waadta ñaari ñaan yooyu mbokk yi bu njëkk bi mooy laaj yañ lay laaj sa biir bàmmeel mooy fitnatul qabr faw ñu laaj la ko te ñaan yooyu nekkul lettre bu ñu lay bindal yow néew bi nga ganaayoo la ko ngir buñ la ne pëkk pëkk sa bàmmeel dekkil dekkil la ngir laaj la nga yóotu lettre ba di ko liir amu fa de nekkul it loo xam da nga koy mokkal buñ la ne pëkk pëkk nga récité ko du loolu de ab dundin la mooy nga gëm ni yàlla mooy sama boroom raditu billahi rabban te islam gii mooy sama diine te muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ki yàlla yónni woon ci ñun moo nekk sama yonent loolu ab dundin la du lu ñuy mokkal wala lettre buñ lay bindal nga yóbbaale beneen ñaan bi mooy yaa ngi ñaanal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam al wasilata wal fadila te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ne képp koo xamante ni ñaanal nga ma googu ñaan topp ci nodd gi ba pare nga ñaan googu ñaan ëllëg yowmal qiyaamati dinaa la ramu yal na yàlla boole ci ñi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ramu kon loolu la wax ci nodd mu ni wax safil awwal ak la nekk ca sàppe su njëkk mooy li ñu wax léegi ci sàppe ci xutba bu njëkk bi mu ni bu ngeen xamoon nag la nekk ca sàppe su njëkk si la ca nekk ci yiw nee na da ngeen koy njëkkante bay loterie ñu ni doo fa dugg yow kenn non maa fay maa fay dugg kon nañ leen nañ loterie ñu loterie ba kenn gañe kooku dem dugg fa ndax la fa nekk ci ak yiw mu ni walaw yaalamuuna ma fi tahjir su ngeen xamoon li nekk ci teel a ñëw ci jullikaay bi bu dul juma su la julli taxee jug nga ñëw egg si toog ñu ngi lay bindal yoolu kuy julli ba ba julli du jot ndegam julli moo la fa bàyyi bu dee da ngaa julli it lu mel ni timis toog fa di xaar gee ñu ngi lay bindal yoolu kuy julli ba ba nga fay génn bu dee juma nag moom teel a dem bokk ci waxtu bu njëkk ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ni yaa ngi mel ni ku saraxe gëléem ka ca topp mu ngi mu ngi mel ni ku saraxe nag ka ca topp mu ngi mu ngi maa ngi mel ni ku saraxe am kuy ku am ay bëjjën ki ci topp mu ne yaa ngi mel ni ku saraxe ginaar ki ci topp mu ne yaa ngi mel ni ku saraxe nen mu ne nag bu imam xasee ba taxaw di xutba malaaka yi tëj nañ boobu suufu yow moom amatoo bindatuñu ñu ngi toog di teewli li nga xam te moom mooy xutba bi kon ma fi tahjir mu ne las tabaqu ilayhi di ngeen ci njëkkalante di teel a dem ci jumaa ja mu ne walaw yaalamuuna ma fi l atama su ngeen xamoon it la nekk ca julli gée ca jàkka ja wa subh ak julli suba ca jàkka ja la ataw huma nee na da ngeen ca dem walaw xabuwaa donte da ngeen di raam di dem walaw xabuwaa di raam di dem kon mbokki xadis bi tënk na lépp yi ngëneel ci jàkka ak lii di déglu nodd ak lii di njëkkalante ci sàpp su njëkk si fattaqullaha ibadallah wastuu fi sufuufikum wastaqimu taraasu wa taxaalif wa tax wa taxtalifu wa atiicu allaha wa rasul laallakum turxamuun nañu ragal suñu boroom subhaanahu wa taala te ñu fexe di góorgóorlu di yemale sàppe yi te ñu koy taxawal taxawaay gu jub xoj comme ni ko alayhi salaatu wasalaam misaale ci malaaka yi nañuy sàppe si kanamu suñu boroom subhaanahu wa taala te ñu bañ di wuute wuute gi mooy ñu bañ a dëgër doon ñu nooy kenn ku ci nekk buñ la nee jegesil nga jegesi arriéral nga arriéral duggal fii nga dugg fa te bañ a nekk loo xamante ne luy xat-xat loola nañu jaamu suñu borom subhanahu wa taala topp ko moom ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir yàlla suñu borom yërëm ñu ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا